ndeysaan ñaari mbër yaa ngi taxaw yàgg maar e tey la samedi 13 avril bu leen jaawale lii dama koy bañ ndeysaan mu ngi nii ambulance ambulance bu Thiès wuli deux bu bawal laa ilaha illallah wuli deux digganteem ak kële dëkk caaroy tur wa réerati na ma lamin ciy la caaroy mbooloo torompeur yaa ñëw am solo daal mooy nun jullit yi nañuy ñaan ci sunuy lexlaas ak sunuy faatiya ki nga xam ne chrétien la gëm yonte yàlla Isa ñaan ca la mu gëm Sénégal jëm kanam man de lii laa wax parce que réew mi noo ko partagé ah loolu de laa xam man ku ne ñaanal ca la nga yaakaar naaru soogaas ca Thiès man mu ne ma delloo delloo loolu cey naaru moo saf xorom naaru seex bu wulli de waay seex ay kappoo laay seex mbër maa Anta mbërum Baye Sow ma mbërum Thiès mbërum borom Thiès Siteu la ñu wax ak ñoom ambulance féete gauche eh Wouly Gueye droit mu ngi dox ci koom Wouly Gueye sànni na gauche ma ngay jël ko mu ngay dóor eh ñu xeex xalaatu ma mu ca kaw waaye Moussa Ndoye Garga fàq na ko rëpp da koy wër da koy daan wala lan bañ na de am na nitoo bañ na de ambulance deux temps lay bëree waaw na ko teg si yoon. pank lay bëree. wuli doo pank la. pank la. panalang ba mooy kéwél. waaw waaw waaw. daa pank ba panalang. kii kéwél kéwél. kaay nu xeex duñ fi jóge la lay wax. il faut que seen combat. yëpp noonu naa la pank ak panalang lañu. bu mën a ñàkk. dañuy defante ba mu jeex. Ah. non dafa fonk entraînement ambulance. ñu ngi lay takk na ko. ñu ngi lay dajale wala. yeggaguñ. da lay daal waaw jeex bëre am na nag loo xamante ni dégg naa ko ci wuli da koy yóbbu dal na ko lala eh mbot bañ dawal mbot mu rëb dawal mu bañ seex la ilaha illallah mbërëm seex mi bañ na de mbërëm daal saw mi mbërëm ruy Papa Ndiaye sérieux def si yaawoo daa ñëw paa bi ko doo ci kër ci ci lamb ji waaw heure bi ñëwee paa daa tàmm tardé Papa Ndiaye des fois suñu nag su ko de waaw Ndiaye waaw kenn ma ku ba kenn bàyyi day wax ku bëgg liggéey di nga nangoo sonn ah, mais ku ne liggéey te bàyyi gaaw a mer boo waxee rek mu ni ma daa sukar ba noonu nga xam ne mer ma la waaw noo tudd nga mer waaw foo dëkk nga mer waaw ah Lamine noonu nga mer boo meree kalaamee waaw ku mer karaan moo tax mu ne xottu xaaj bu wooyee danaan kotom lamin xottu xaaj lay def doo xam nga kotomam maa ko xam mooy ñu jàppaloo boo dee baa ñin la sa noppi ah. demaan àll ba xaaxam bi jàpp la yéen yi da ngay ñëw lépp kotom ndax ba xaaxam ah, waaye lamin ñaari mbir ci géew bi di seetante waaye kor na ko di seetante ndax da ngay dóor waaye xanaa xamu ci xeex déedéet xeexaguñu bëri bi la ñu a ah. xoolee ñoom ñaar faw ñu mais wuli na. waaw ku ko yor da koy wax ambulance kenn du bëri moom ci wet. day wóoru waaw. di ko jox ay wet. day wóoru de. parce que nag daa mën a bëree. daa mën a bëree waaw. waaye wuli de day bañ. mbër mu bëri jom la wuli de. waaw ndeysaan. ambulance Babacar. boo xoolee seen tànk yi. da nga naan ambulance da nga naan ambulance gën a liggéey tànk. boo xoolee seen seen tuus yi. loolu ngay gis. waaye moo xool épaule yi si kaw ñu liggéey daa mel ni moo gën a yaatu épaule. dégg naa nag. waaw ci weewu béy. waaw xaw ma weewu kaña. moo wow nag. waaw ñu ne ñu ne na blessure ci tànk. waaw blessure day di ko bëri waale wul. wóorul waaye daa mel ni kon wér na de. ndax lii moom ku wóorul mënoo koo def. wóorul de ku mel eh, mu ne ko da koo mbaar. bëttee ma mbaar. waaw say lamin bët ak mbaar. bët am mbaar aw jën xam nga ko maa xam mbaar waaye jën lu ci gën a am solo mooy kañ mu bañ day bañ déedéet ñu ngi dee kii pratique yomb a jóg jàppoon tamit tar na ah, waaw parce que boo xoolee tànk yi daf ñu liggéey naa coono nag vingt combat am ci ñoom ñaar bu lii bu yàggee ku sonn mën ngaa daanu mais combat bi def na cinq mois presque Babacar moom dafa ah, lam lamin sport individuel la de géew bi jàppante bi piit Malick a ngi capp di arbitré Malick ziar naa la Malick combat bi noo ko gisee nee na du wax nopp bi na Lamine wax na du day arbitré waaw dama ne ma man la booy loo waaw Malick daa baax waaw borom baax la dafa neex deret waaw Lamine neex deret daa noppale daa noppale de boo neexee deret ah doo bëri problème taxul a ñàkk fay deret déedéet ñàkk fu la neex deret daa sore mu ngi mel ni yàlla ak yaali mu ngi mel ni yàlla ak yaali ki nekk yaa ngi sëpp sa ngëm morom boo xoolee loxo tuuru droite bi dafa cof jàpp ci li waa ji jiital waaw amel am na loxo góosam bi li mu téye dëgër na trop ràcc waa ràcc ngi ndax toog na ci ndax bu ñu dee def mu lay dajale takk na la da koy mot hee mu bañ takk da koy botti ndax mot day wéelante wéelante da lay delloo delloo mu bañ hee waay bëre ngi bëre bi neex na moom Balla Gaye bëre neex na. eh bëre bi neex na. Benzema dem ca Algérie. ah Benzema dem ak Tigre Noir. Tigre Noir kenn du ko faal. soxna Ana Seck Cheikh du foto. mu ngi ci kaw toog di seetaan mbërëm. waaye tuuti ay Sarr dinaa ko nuyu. tuuti ay Sarr borom Espagne. Xadim aussi ay ca Allemagne. bu mën a ñàkk baba. eh Basoka ca États-Unis. Basoka suñu waa ji ñu ngi lay ziar. eh maam Modou Gueye taal bi Serigne Mbaye si Abdou. ah comme maa ngi leen fàtte woon. ñëpp waaw Ramdan Ba Fakk mu ngay États-Unis loo def ni loo def li nga def ni mu tudd te sant sama yaay bu yàgg fu loolu tëfër ak bépp yaay nuyu waa États-Unis gëma noonu waa Sances nuyu waa Medina comment bi gaay mooy loolu loo def ni mu tudd sant yàlla entraînement entraînement sant yàlla sant yàlla sant yàlla sant yàlla sant yàlla taxawal dañu dégg ñu da nga bëri ak blessure am na barki Mohamed am blessure yàlla suuf sama ndey ma ñàkk sama ndey xool état bi la mën a yëngal yëpp xool entraînement bu baax daa ñu sama tànk waaw blessure la waaw bu ñu affaire baax mu ne dama am jom dama am jom xool billahi wala taala ku ma defal yëpp bi ma génn ci waaw moom yàlla baax na du ma wax du ma wax sax du ma wax